ma ah. ne ñii nga xam ne dañoo taxaw ci magaay bi tëggkat bi gisul li muy tëgg. ma ne diggante bi magaay bi. ndax mu mën a doo waaye yow eh, saaw la. waaw bu taw bu ñuy saa bu ñu taxaw ñu ngi Aliou ñëw. ah. Thank you. jëf Tapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar wala boog maa ngi lay nuyu waat. bëggoon na ma xam lan moo war a seet teewaay tey fii ci kaw. léegi nag. waaw yaa ngi am léegi nag. ki ñu yore mooy. Bébé Balla. Watiga Adama Diouf. mooy Touche. mu ngi gis jamono si ñoom. mu ngi gis ñoom si ñoom. képp ku ma fekk fii ci stade bi Pape Demba Ndiaye la xamal ko sant bi ko war a ayca ayca la ko ayca la saa maa ngi ko nan nga gisee làmb Kaolack nga gis ne bu bees teel ba ñu wàccee nit ñi géej coow amul xula amul kenn ba mu xul sa morom par rapport ak bu def ci ñaari non lii oh, lii dafa te ngi nekk à ah, ah. kenn tiitul dara kenn xalaatul dara amul làmb da ngay ñëw si kenn jàppal sa làmb lamb tey tey dafaatin tey waroon nañ koo mën a teg ci exemple mel nii ak beneen ñeneen ak ñeneen ñu ñëw jaayante ko fii ci réseau yi xam nga gën a développé làmb ji xam nga yóbbu ko ci régions yi partout gars yi suivre làmb ji yi jee quoi te vraiment ñu ngi gestu loolu tey ku ñëw Kaolack ak làmb ji ni mu mel ni vraiment sa xol sedd na quoi franchement yeah. kon Tapha Tine am na envie génn ci régions yi bëri kon sortie bi di ñëw est duñ ko def ci région ah bien sûr pourquoi pas lii ku ne ko ko lii ni mu taaroo stade bi fees dël waaw lii mooy làmb làmb leneen na stade bi ñëw mel ni mu war a mel xam nga ñëpp bëggee ku ne ñibbi ci jàmm ak salaam. ak ngeen toll est-ce que xañ ngeen ci région yi. ah mais bien sûr pour pourquoi pas loo gis organisation la rek voilà loolu la quoi amul leneen. Diourbel nga ba a laal wala Thiès parce que Thiès moom moo fi amee stade bu yaatu bu passé rek. Réfane laa koy commencé balaa dara xew su dëkk. terrain Réfane. waaw maa la wax lool ak a mën a nekk. ku fekk foofu laa xamul ku la fay nangoo fekk si. kan moo ma fay. nangoo fekk. <laughs> non loolu ay lijjanti la rek loolu du dara. gars yi boo leen fayee dañuy ñëw bëri si ah. depuis bi nga jëlee jógee ci Bombardier léegi ñu ngi doon xalaat ni balay yàgg nga am combat. dégguñ tabatin ñu koy tudd di tudd kenn wala ñu ni tabatin ñoo ngi koy démarché ana yan leeral nga mën a def ci loolu ba bi nga bëreeg Bombardier ba rek ndax promoteur yi ñu lay contacté waaw mais ñu ngi wax ak man ñu ngi wax ak Thioune mais xam nga du dara du benn combat bu taxawagul xam nga ñu suñu entraînement di maintenir suñu forme xam nañu suñu état de forme fi mu toll ñu ngi ciy liggéey ba suñu état du yàqu voilà di toog xaar combat xam ne yàgg-yàgg dañuy am combat surtout amul leneen le moment non loolu su ma diggante ak ñoom la quoi franchement mais xam nga en tout cas daal ñu ngi wax ku ne xam na ne làmb coow ji des fois mooy ëpp bon ñu ngi toog di dégloo ak staff bi rek voilà. ndax Tapha Tine am na ñu ko gënal wala fi nga toll ci làmb amatoo choix pour bëre ak kenn. non tey moom wax dëgg yàlla du ma nekk di laaj kii ce soi loolu moom wax dëgg yàlla xam nga liggéey naa fi ci làmb loo xam ne nii xam nga xam nañ su may adversaire potentiel jéem amul leneen. Ah, mais boo xool presque adversaire yi. ñi nga xamante ne tolloo nañ ak yow gabarit ñu jàppe leen ay VIP ñooñu boo xool presque ñëpp am nañ combat say rak ay ñoo des ndax pare nga pour pour may leen sens ku mel ni Sa Thiès mi nga xamante ne def na exploit barki dem bu daan rëg-rëg ba ci rëg-rëg mi mu doon bëri ñëpp ay champion lañ lamb mooy déroulé noonu mag ak xale dañuy daje lool lamb la donc xam nga lépp ay combat la ñun newuñu fi di taamu kii wala kale ñun ñu ngi entraîné ñu ngi suñu yoon xam nga ku ñu ca fekk muy combat bu jaadu ñu jëflanteeg yow loolu moom c'est clair quoi. kon pour tàllal ko loxo wala pour tàllal leen loxo. dégguma. pare nga pour tàllal leen loxo. déggoo li moo man ne lamb mooy déroulé noonu ñun suñuy grand frère lañ fi newoon bëre ak ñoom ba léegi xam nga ñu ngi jëflanteeg ñoom looloo fi nekk lamb da ngay da ngay liggéey reyante boo yëg fa nga war a yëg loolu la. amul nga xam mooy egg si nañ ci yéen wala excès guñ ko. non kan ak kan ngay ba ci Reug Reug. bari nañ sàmm ak ñeneen ak ñeneen sax mën nga ci lim ay dizaine kenn mënu leen bañ toll na nit ñëpp mën a bëre xam nga tey xale bu ñu la ci suufle doon doo ñëw ne nga koy daan da nga koy respecté bu am li nga am ci moom looloo fi nekk ñëpp a yegg si bu ñu bañal kenn sax champion man noonu laa mel quoi ñëpp laa nangul seen champion voilà muy noonu. mais amateur yi tamit bëgg yàgg nañoo bëgg sa combat ak Eumeu Sène yàgg ko coow sa combat ak Eumeu Sène lan moo ko bloqué. ci yow la wala ci moom la wala promoteur yi ñoo bari ci ko man man combat li mu yàqoo ci man pour te dire du bariwul bëriwul man tout le mooy damay joxe sama accord la ñoom ñoom cuun ñoo koy lijjanti ak mbay ndewaan ñi ak staff bi ñoom bada ñoom falu fay prési la amul problème man aw ma problème bopp man tout le temps maa jëkke joxe accord toog di xaar kon yow ak Eumeu Sène du yàqoo ci yow bu la ci man non jamais du yàqoo ci man parce que champion la suñu grand la def na fi loo xam ne ni kenn mënu koo bañ vraiment dégg yàlla. te a bëreeg géant trop. nga mën ku mën a bëre la jàmbaar la wax dëgg yàlla man bëgguma di taxaw ci benn turu kenn quoi wax dëgg yàlla suñu grand la ndaanaan la bu feccee mu neex bu bëree mu neexee tout voilà muy noonu. dëgg moom nee nga bokkul say adversaire. non man ñëpp su may adversaire lañu. ñoom ñëpp su may adversaire lañu. la res nag wax la quoi man ñëpp su may adversaire lañu. wu ma kii ce man ñëpp su may adversaire lañu polyvalent laa ñëpp laay sama rak yi nekk bawol laa fi bàyyi jeena mu ngoog. Medina ndax danga leen fee bàyyi. waa Medina ñoom Gris Bordeaux ñoom. man su ma frère yi nekk bawol laa fi bay tuukul. jërëjëf kenn mënu ci dara muy Baye Mandione ak Bébé Saloum ñu doon ay champion yu mag a mag mooy li ma la wax doon wax léegi nii tey Bébé Saloum ak. fu ñu daje tey ak Baye Mandione mbër yu mag a mag yi ci kaw yëpp war nañoo mën a tas xam nga dem bëre ji ñii Fatick ñii Louga may nuyu waa Louga aussi waa alter yi ma leen di nuyu ñoom ñëpp xam nga ñii dem Gambie tout xam nga làmb ji neex quoi. séant yi ne ci làmb ji yëpp am ay combat ñëpp dem ci régions yi bëre lii nii xam nga Baye Mandione Pépé Saloum toll nañ ñëpp façon effectivement bu ne bëre nañ ko fi daan nañu ñu ne kon tey xam Kaolack ni mu mel ni daal macha allah lépp nag di ko sante 2C voilà loolu la quoi. ana Eric. Eric dellu na dem France dellu na dem toj na fi de toj na arène nationale. non mais kenn du moom à la lay dàq sax incha allah parce que moom dem na boo indi seen affaire yi quoi bien. waaw nga ñëwaatal ma rek si sa diggante ak Pape Demba bi tey mi nga xamante ni moom moo waral sa déplacement ñëw jóge Dakar ñëw. waaw Pape Demba bi tey yow xam nga. man ak yow moom dañu bokk ay xarit ca weesu faar ak fépp xam nga kon tey bu xewlee lii c'est normal yu ñëw teew ñëw jàppale ko ci bés yi parce que noonu lay ñoom ñoom bu ñu amee ay ñun bu ñu amee combat ñoom dañ ciy son c'est normal lii mooy seen bés ñun ñëw teewal leen xam nga wàññeewul dara loolu rek quoi amul leneen ñu koy remercier bu baax ci li mu def nii rafet na neex na kawlax gépp a ngi bég vraiment mu ngi noonu yes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 maanaam ETDR moom wul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahman yéen doomi réew mi yéen la fi